non bii dafay dem départ daa tourné de xool li nga gisoon ñu aw nii.

tey alxamis yamook ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier ay samba boo yu war scooter këf saagu way daankatu doole bi yore bërëbu Orange Money te nekk ci kaw tali bi ñu koy woowee Babacar Fall bi Dakar ak yegsee ngir xam li xew fekk ñu fa Babacar Fall waaye fekk nañu fa moo du Sakho lépp ci kanamam la xewee. scène bi mu ngi euh, am tey jii tey di euh, mercredi je pense le 21.

yaakaar ni ñu def ñaaw ñaawteef gi ñu yàgg a topp Babacar Fall lañu. képp ku nekk fii si taliwaale xam nga per Babacar parce que moom mooy gérer fi Orange Money bi borom fii ñëpp moom moo ñu suñu transaction yi boo fi nekkul sax da ngay nekk fa nga nekk na ko per mu defal sa transaction bu fi nekkul euh, xaritam yaa ngi fi ñoom ñoo koy gérer donc moom loolu liggéeyam la du sàgganteem du dara mais liggéeyam la. chaque jour dafa war di yor xaalis moo tax xëy na ñi ko def nag bon du ma ne xam nañ ko mais bon sûrement que ni war ko war yàgg repérer lañ parce que koo xamul war a xam ne kii war na yor xaalis ba nga xam heure bi muy génn parce que lii nii dañuy profité juste si benn point de faiblesse am bi am juste rek pour bépp xaalis bi. sooy bu taal moom di jaaykat dend ak Babacar Fall mi ngi ñaaw lu li métti na ma trop ah métti na ma métti na métti na affaire ñi fi nekk ñëpp ñi fi nekk ñëpp la métti parce que dafa métti xëy si nii rek ñu jël sa xaalis agressé la yóbbu ko xam nga dafa metti quoi loolu moom dafa métti trop moom après li ma dégg xaalis xaw na takk quoi xaw na bari. yoo yoo moo ci gën a métti quoi. waaye bu ñu sukkandikoo ci Serigne Modou Sakho lii du fi gulet. man moom wax dëgg yàlla du lu bees si man parce que man dimanche bi passé rek lañ sàcc sama biir téléphone sama biir place bi sama iPhone boo xamante ni sama biir place lañ ko jëlee donc te loolu tamit bari na lu muy am fii ci wesu faar bi parce que instant boo xool insécurité bi dafa bari fii trop parce que chaque jour nga dégg ko ne sàcc nañ ma chaque jour nga dégg ne sàcc nañ ma te loolu instant yi moom bon wax dëgg yàlla kenn xam lu mu doon parce que c'est inquiétant. mu mel ni kon. ñàkk kaaraange ganal si na ñi nekk ci tali Wally Seck. léegi amatul sécurité noonu quoi léegi yuutu noonu melatul noonu sécurité bi melatul noonu quoi xam ay va et xam nga doo xam quoi. doo xam kii kii loolu la quoi xam quoi parce que gars ñi dañ fiy ñëw doo xam nit ki fu mu dëkk doo xam fu mu jiyee ko day day gis ko fi ah. lu toll ci 6 millions dem ci Mali Foro Babacar Fall porté plainte te yaakaar ne Samba booy yi def ñaawteef gi. yoon dina leen teg loxo ci ni mu gëna gaawe